Sénégal solution mun na fi am wax leen na leen état bi teg na ay bànqaas waaye aussi mobiliser na ay ressources yoo xam ne xale yi ñoo ko tax a jóg te tey li xew tey ku ko seetlu da gis ne ginnaaw projet yi nga xam ne ñun ñoo ko andil xale yi ñu xool ko apprécier ko euh, nangu ko am na ay projet yu am solo ak ay réformes yu am solo yoo xam ne xale yi seen bopp ñoom ñoo ñu ko proposé donc loolu lu muy wane nag mooy xale yi am na ñu ay xam-xam am nañu ay xalaat yoo xam ne. su ñu àndee ak état ñu déroulé ko incha allah gëm nañu ne kenn dootul mbëkkati di dem ci bitim réew solution yi am na fi nañ ko fekk fii nañ ko wut fii te dinañ ko fi trouvé bu soobee yàlla